gis ngeen Aïssa li mu sol ci clip bi la ilaha illallah asalaamaaleykum sama waa Aïssa bëggee naa leen j'espère que ni si jàmm bu baax a baax mais sama gars yi Aïssa Koné war na génnee son def clip ba ba mu rafet image yi nice lépp nice si son bi ñu bëri ci commentaire yi ñëw naan neexul neexul neexul neexul neexul waaye loolu xanaa déglu wala son bu baax pourtant son bi neex na rek

Jonge tak fun Ima whistle kone nena Jonge tak fuñu dam koy dan ki ma koy daanel soldat ter. terre duma ko may dara tour yep lay fat après mune ne may diw bi ni na sa ciep lol rek harmonie ni mu dugg see si son bi rek dafa dafa dafa neex dafa neex xaw ma nag lan mooy problème ba gars yi naan neexul neexul ñu continuer. waaw mu ne fii fu mu teg bët man lay gis dama ko mujjee yéem. maa mat faam lam na ci samay feem mais lii c'est mais lii c'est ba pare voix bi dafa neex man xaw ma lan mooy problème gars yi neexul neexul nii après ñu xool ñu ñu continuer. après mu ne daf may xool naan ma tu me rends fou maay féexal sa xool foo mënti dem dangay ñëw sama jonge moo lay gaañ mën nga bëgg ci sa life te pourtant ni mu ko wayee neex na de après refrain bi ñëw fii tous tous nag man rek lay topp tous tous nag tous tous tous nag tous tous tous nag tous tous waaye lii neex na waaye nga naan neexul waaye yéen léegi léegi léegi nan ngeen di dégloo son yéen sama gars yi yéen dama bëgg xam yéen nan ngeen di dégloo son pourtant neex na de après refrain bi mu ne e man rek lay topp suy nelaw man man rek lay gént kii de man la dénk xolam man maay seytaane bi sant clip bi day wax que ni moom moo joŋee moom mooy seytaane beeg yooyu noonu xëy na ñi koy doog xëy na am na ñoo xam ne bu ñu dégloo son du neex si ñoom mais fu foog ñu déglu ko dégluwaat ko dégluwaat ko ñu doog xam ne son bi neex na barki yàlla ay sa ko ne xaw ma ko xaw ma ko maa ngi moom mosuñu wax mais mais dama seetaan clip bi affaire bi naa si man mu am na ñu ma dëkkal sax laaj naa leen ñu ne ma neexul ñoom moom rab rek la ñuy déglu moom mais comprendre naa leen mais yéen ñi déglu waaye seetaan leen. waaw. xam naa nag xam naa couple yi moo gàtt moo tax ngeen ne neexul parce que moom am na benn son bu mu defoon Prince Art rangati son boobu moo gën a moo gën a gudd son bi son su ma juumul trois minutes la léegi son bi deux minutes presque trois minutes la léegi ñu demaat ci ci beneen ci beneen couplet bi ñu xool ñu xool lu mu wax ah. waaw. mu ne ma ni jongee tax sama xiir laa yor di bàcc moom si jongeem la yor xiiram di bàcc. après mu ne ñuy duñ tus si game bi maay bandi bu mag bi ñooñu duñ tus ci benn bi si si game bi moom mooy bandi bu mag bi après moom mu xool waxaat fee gis ngeen Aïssa li mu sol si clip bi laa ilaaha après fii mu ne ku sa jëkkër dof ba fël ma dootoo nelaw dama jongoma ba yàqu seen wax laay fël ni ngelaw man maa si pourtant harmonie na woy ko woy bu neex barki na ko bu neex man xam di ko wokk te munuñ dara mom jox ma xolam ba sama nenne su guddee mu ma mama oh harmonie you know what I'm saying ni stop Well, well rek. Wow, fii mu ne o oh, bébé xam nga ne maa lay daaneel maa féexal sa xol foo dem da ngay ñëw sama jonge moo lay gaañ mën nga bëgg ci sa life après refrain bi mooy ñëwaat rek man rek lay topp après yaa gën a xam tous tous nag tous yéen ngeen ne lii neexul tus tus nag tus tus tus nag orange ma ah, man de ci man boog son bi neex na clip bi nice na yéen sax xanaa nit nag bu demee ba am ba am ba am courage mu toog gëj a génnee xaw ma dafa problème ak presse art xaw ma mais clip bii nii presse art produire ko te daf ko créer si propre scène si propre scène xana ngeen yok ko courage sax parce que lii naqariwul bu naqari woon yéen naqari ñun wax nañ ko nakari naqariwul so bi dafa neex <laughs> dama ne li lii ko def ci vidéo man ma sànni sama gré de sel comme fan yëpp maa def ay vidéo si ay clip toog ay répété gene clip clip mi def ci ñu naan neexul neexul légui yeen yeen yeen yeen ñi jàpp ni son wi neexul légui yéen lan ngeen bëgg <laughs> pourtant son bi dàq son yu <laughs> sama gars yi ba vendredi di allah